waaw man Idrissa li ma ci wax waxati naa ko dama jàpp ni ku am un million de voix dans un pays am 20% pour cent nga jël deuxième ak conditions yi élection yi amee ak hmm. conditions yi mu ci bokkee hmm. sama xalaat sama gis-gis mooy Idrissa war na wax il doit parler ouais c'est mon point de vue et c'est le moment ah je sais pas man beaucoup réew mi franchement. Mais, mais citoyens qui analysent... Non, man, je mais les faits sont là. Je ne suis pas un analyste politique, je suis un homme politique. <laughs> analyste. Euh, mais il décrypte la situation politique. décrypte la situation, Parce que homme politique aussi. Proposer une mhm. solution. solutions, D'accord. Il, doit parler. Sans avis, mm -hmm. moi, je ak qui nous représenté ci Sénégal représenté l'opposition ci sénégalaise Et amna na dal, daal bu gën a bu mu wara a taxawé réew mi war ko taxawoo opposition war ko taxawoo ñi nga xamanteni ni ñoo voté ñoo ko voté. d'accord jamono joju Babacar ñoo ngi ñuy wax statut de l'opposition. vraiment Macky est fort hein L'opposition dort dans son salon comme ni nga ko on nous propose aujourd'hui le statut de l'opposition. Demba, opposition bi ci bir sax ñoo ngi joxante ay coup de poing fu mu nekk nii war a kan moy jël statut boobu non waaw statut chef de l'opposition. wax naa ko amulul benn njariñ askan amul njëriñ amul lu mu mën a indil suñu démocratie ah amul